taxawu baykat yi nekkee ci vallée du fleuve Sénégal ba ñu bañ am benn jafe-jafe ca seenub liggéey moom moo di jéego yi nga xamante ne directeur général bu SAED Alassane Ba jël na ko. fa nga xamante ni moom moo di ca zone bu njaweel ay jafe-jafe amoon fa jëm ci wàllu ndox lool yi tax nag ci samedi ji yam fan weeri fan ak benn ci weeru août 2024 directeur général de la SAED daal di amal ab délégation dem ne meeku ji loolee nga xamante ni am na fa ginnaaw nag ay jumtuwaay yoo xamante ni dafa jëm ci ay matériel yu ñu fa yóbbu woon ngir mën a saafara yooyee jafe-jafe. liggéey bi ñuy def ni président de la république moo ñu ko sant ak premier ministre Ousmane mais également le docteur Mabouba Diagne ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire de l'élevage. élevage ñoonu yebal fii ñu nekk ci wetu baykat yi euh, di saytu seen coono pour une administration de proximité ce que nous avons jii si samedi bi ñun fait def délégation man ak sama directeur u daam Mbaye Niass mi ngi ni taxaw moom ñu ñëw pour saytu liggéey bi nga xam ni moom la def ci ay kàddoom nag ginnaaw bi mu rafetloo liggéey bi na muy doxee mu gën a ñax baykat yi ci ab taxawaay ci wàllu liggéey bi ngir ñu mën a àgg ci souveraineté alimentaire. dal na suñu xel. Hmm. defe naa bu ñu continuer nii fii la ay quelques fan rek defe naa ne problème mu ndox. dootul am fii si si jawel bi. Hmm. beneen bi ma bëgg wax également mooy ñu góorgóorlu xam naa ni fi mu nekk euh, sore nañu trop si hivernage bi hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi si un mois ñu ngi si deux mois donc ñu ngi si taalage ñu saytu ñu toppatoo seen tool yi pour que ci fin ba ñu mën a am rendement yu baax parce que objectif bi ñuy am mooy aujourd'hui bi ñuy définir dans le cadre donc du nouveau projet ah, donc euh, bi nga xam ni moom la nguur bi di doxal mooy ñu góorgóorlu ba am li ñuy wax souveraineté économique mais souveraineté économique boobu balaa ñu koy am il faut ñu am souveraineté alimentaire donc moo tax mbay mi am solo te defe naa ni euh, nguur bi dootu leen teggi loxo dana continuer di leen jàppale pour que véritablement jawel problème bi ñu am fii dootu fi amati ca zone bobé nak lu tollu ci 850 hectares ñu bay ka fa mu xam rek ni programme spécial ñanga nga cay xalaat ngir nak amal ko fofé ci Jawel la. li ñu gëna xalaat sax moy ñu wutal leen benn programme spécial Jawel. Mhm. bo xamni programme la bo xamni dana tax fi ndox mi dana mën di circuler donc tout le temps ba nga xam ni dootuñu sax soxlati ay intervention lolu Sayed dana ci taxaw le docteur Mabubo Diagne dana ci taxaw le premier ministre Ousmane Sonko dana ci taxaw mais également le président de la République bi nga xamni ni mo définir vision bi danañu jàppale si loolu. fii ñu ngi fi bay ren nii nii ci compte si si hivernage bi 850 hectares donc 850 hectares boo ko sauvé defe naa ni sauvé nga ay famille yu bëri sauvé nga également Sénégal donc loolu moo tax ñu ñëw fii pour taxawu leen pour jàppale leen pour que effectivement ñu am ay rendement yu baax am production bu baax mën a dundal seen bopp mais également dundal Sénégal. ca seen wàllu ñoom baykat yi daal di wane mbégte mu rëy mi nga xamante ni am nañ ko ci wàll wii nga xamante ni nag moom moo di taxawaay wi nga xamante ni directeur de SAED bu taxaw na ko. ñooñu tànkam lu wuñ ñu dañ ñoo indil big folot mooy bi nga gis nii si biir dex gi muy liggéey loolu nag bu ñu ko amee te noonu noo taan noo daan taxaw di sànni ay xeer kon bu ñu gisee lu nga xam ne dal na suñu xel mm-hmm. am na droit nii vraiment euh, ñoo ngi gërëm si kaw commencé le président de la république Bassirou Diomaye Faye le premier ministre mais également suñu ministre tutelle docteur Mabouba Diagne mais nous man directeur général de la parce que ñun suñu langage àggul si suñu langage mais directeur de la vous foo ko muy muy muy téléphone samedi teewul mi ngi ni ak groupe am yëpp ñëw ci àll bi ànd ak ñun du ñun baykat loolu la ñu xam baykat xamul dimanche wala di altine baykat li ma xam toolam yàqu na ku ko taxawu ci toolam baax. moo tax tey bu ñu gisee loolu vraiment ñun baykat yëpp ñu ne ma dañu bëgg tey nga taxaw gërëmal ñu état bi gërëmal ñu le directeur de la SAED te directeur de la SAED duñ ko wax fii lu fi xew ñun ñëpp moo ñu gën a xam lu xew fii moo tax bu ko waxee institut daf ñu war rek la situation bi. ku jaaxle sa bët xonq nga gis ñu teel a ñëw wallu si la kooku day wàññi stress te stress yaakaar naa mooy maladie bi nga xamante ni moo gën a foor ci nit. tey gis nañu loolu ndax gis nañu suñu directeur suñu wet mu tax ak ñun ànd ak ñun ak euh, naxar bi ak métit bi ak suñu suñu nattangoo ku mel ne Ablaye Faye Ablaye Faye damay teg loxo ci moom vraiment ndax taxaw na fu mu war a taxawee. lii nag di ab jéego bu am solo bu jëm nag ci politique bu yees bi nga xamante ne nguurug Sénégal indi na ko te mu jëm ci gën a jubbantiwaat jafe-jafe yi nga xamante ne amoon na ci mbay mi naka noone directeur général bi Alassane Ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo di baykat yi rafetlu jéego yi nga xamante ni mi ngi koy amal mu di nag taxawaayu rafet woo xamante ne baykat yi xaar nañ ko ngir nag xàmmewul waxtu waaye tamit xàmmewul bés